malfaiteur le duma ko défendre di wax ci yenn anam yi wax ni malfaiteur le waye dina ko défendre day fatou suma ko waree défendre dina ko défendre mais malfaiteur le c'est ça la réalité bindal leen ma je suis Adji ça, ngeen may Adji sar ay cœur suma ma défendre day xadi ci anam dina ko défendre mais malfaiteur le nama dem porter plainte bu fekkee li ma wax ni malfaiteur la diffamation la ne ma pas porter plainte mais man je suis convaincue que Ndeye Khady malfaiteur la et je vais vous dire pourquoi yow vous amee mon autorisation un salon de massage nga def salon de massage bo, xam Aïe, ay aïe, ay xale démunis xalé yu amul doole xalé yu ñàkk amul ay waju yu am doole yu ñu leen mëna protéger nga jël leen di leen deflo ay massage yo xamni ci ay anam yo xamni ne na leen tu les mets en danger malfaiteur nga sex trafficking parce que lér na la ni que massage bo xamni xalé bu jigéen bi day nouru nuuru nuuru ay sénégalaise wadou becco tak ay fer wala deux pièces sol maillot de bain sol soutien dugg ak ci bi ak ndox ci ak ak góor bu normal tej buntu bi xam nga ni que yow defo leneen lu dul proxénétisme ñu nangu ko ñu bañ ko lolu ngay def proxénétisme ngay def Y'a Dougal Adissar en danger tu as mis Adissar en danger tu l'as exposé à la prostitution tu l'as exposé aux abus sexuels dont elle a été victime sama partagez yi partagé leen ma

wax leen libérer la parole Y'a ngi dégg xam nga lu virtuel parce que sëñ Muntaxa ñu ngi koy ziar di général des Mourides di ziar aussi sama kilifa premier sëñ Muntaxa sama kilifa la mais sama kilifa jàngu bi maa ngi koy ziar di ko jéggalu bu fekkee ni ni ma sama taxawaay bi am na lu ci xajam je suis à l'écoute pour toutes les corrections nécessaires mais ce que je fais, ça, je le puise dans, mes, dans mon éducation chrétienne. Lui Jésus il voilà que puiser. Tu es le gardien de ton frère, le Jésus Que tu n'es que tu nous, tu es le gardien de ton frère. Je suis la gardienne de Adissa. Je suis la gardienne de chaque personne qui est à côté de moi et chaque personne en détresse maintenant ma jaar ma nuyu khalif euh, général Tidiane laye Njaasaan Ñaseen kilifa diina yi kilifa aada yi yéen ngi di ziar di wax ni je suis Adji Sarr bi dama bëgg yéen ñëpp ngeen xam du lenn ludul dul taxawu ku néew doole taxawu koo xam dañ ne do ko fi do waxe fi ku ñu

l'État va veiller à ce que. Adjissar, il y a des milliers d'Adjissar au Sénégal. Des milliers de Sonko au Sénégal. Des milliers de Ndai au Sénégal. Nous avons Ou bien salon de massage. Camouflé, de que taxul mu mu le fait que nous devons couverture, c'est ce qu'on appelle une couverture. Mais le fait que nous devons taxul la c'est fay def nek lu Donc wax ni day xadi malaka la dama faté ubi commentaire une couverture. ubi commentaire Légui kaw xadi ak une couverture. won wa Pastef yéen ku nekk ci yéen bu dee sàcc la ngeen def ko malaaka gis nañ fi ab euh, sàcc boo leen nekk di ko sanctifier actuellement ku àndut ak yéen ak lu mu jub-jub cagala la fenkat la soskat la nit ki bu àndeek yéen rek ngeen ni kooku ku baax la waaye ku àndul ak yéen rek ku bon la par quel yéen ku ànd ak yéen nekk ku baax quest ko àndul ak yeen dal ngeen def ko mu nekk ku bon na fek tiaga bes bu ne ngeen di saga doomu aadama ngeen foog que di ngeen am lu baax ci li ngeen di wut bu que man ma xàcc waxon na len ko méthode utiliser ma man ma dem suñu religion euh, animiste religion révélée nous les gens du livre ñoo ko bokk musulman chrétien bu fekkee ni yéen lii ngeen di doxalee nii dangeen ngeen ciy am daga man ma xàcc yaa ngi dégg damay xacc man wax naa leen ko ay weer que mënu leen am lu baax ci lu bon ngeen di def di sosal nit ñi di wax ni Sénégal amul koo xam ni moo gën keneen ki c'est-à-dire que ñun ñëpp a yem on est des

ngeen di fenal ma ban fenal ma ni que sama doom sama papa sama kii nga xam ne dafa bàyyi ay soxnaam ñëw bàyyi ay soxnaam këram daal di ñëw dem fekki xale bu am vingt ku mu mën a juum di sumoo kiw ci kanamam di ko won ay awraam ak

complot xam nga complot mooy lan nit ki dafa xalaat ni ka ko bu doon dañ ko complot nit ki dafa xalaat ni que Sonko la muy wax nekkul ci moom la muy wone ak la mu doon du benn te dinaa ko won sénégalais yi bu nekk complot am na donc noonu la demee te yow bu fekkee ni nit complot ne la parce que dafa jàpp ni yow sàcc nga mu ñëw ba ci sa buntu sa buntu kër fajal dal di jël sa porte-monnaie sànni ko fa mbala mu ñëw nuyu si la déedéet day ñëw nuyu si la di dem waddal porte-monnaie sa kër daal di génn xam nga moom moo jàpp ni dalay tester yow ndax nit ku jub nga mu jël porte-monnaie mu waddal ko sa biir kër daal di tàggoon ba muy tàggatoog yow daal di dem këram toog benn 15 minutes daal di dellusiwaat daal di la ne waa mais yow Ousmane Sonko ah man de ba ma ñëwee léegi ba may dem sama portefeuille de fii laa ko defe naa ni fii laa ko bàyyee ndax damaa ñëw sa kër jóge fi dugg sama kër gisatuma sama portefeuille. xam nga kooku dafa complot nit kii da koy testé <coughs> léegi ba mu defee noonu bu fekkee ne nit ku jub la day ne yow baa ngi doon waaj a ñëw sax indi la sa portefeuille parce que ba nga génnee laa gis mu wadd fii mais bu dee sàcc la da koy ne ah bon est-ce que doo dem xool xool bu baax nga toppaat say tànk parce que fii gisuñu fi portefeuille de non gisuñu fi portefeuille te fekk portefeuille bi ba mu ba waa ji génnee moom jël na portefeuille bi dem xool ni xaalis a ngi mu jël ko dugal Euh, dougal néegam daal di dee waa gisuma portefeuille bi moy complot ka ñew daaneel daaneel portefeuille bi c'était pour vérifier gëm na ni que ki satch la léegi amna raison pour mëna wax ni ki satch la valablement Ousmane Sonko bu fekkoon ni dafa jub bu doon complot sax ba mu démé ba xalé bi wéet xalé bi da koy né bu génn keneen ki ba mu bëggé kenn da koy né fo génn dem toogal fi mala mu né ko euh, yeen ñaan ñëpp génn leen masangu

partagez la vidéo. Au-delà de Ousmane Sonko, qui aurait tout juste dû man up, faire l'homme, taxawde de Fangi wax noonu dem naa fa sàgganu naa ba xale bi jigen bobu yegg ci mom. maa ngi jégalu samay soxna di jégalu askanu Sénégal bi yépp mais xalé bi bamay yegg ci mom dafa nangu ma nangu le consentement mutuel et coow li Pour boobu vous sama genre dañ koy respecté genre dañ koy respecté dans vos rêves Katibal <laughs> dans vos rêves vous êtes dans le déni vous êtes dans le déni mais euh, cette affaire-là ne sera pas tournée hein. la page ne sera pas tournée rêvez toujours rêvez toujours parce qu'au nom des autres femmes, cette affaire ne s'arrête pas plus à Adissar. Ça s'arrête. C'est toute la société sénégalaise, qui, toutes les femmes sénégalaises qui doivent être protégées. Et j'étais de euh, tourner cette page-là, c'est pas à Macky Sall de la tourner, Macky n'est pas une victime. Voyou qui wëng Tout le li est wax ci Yo, Macky Sall est-ce que je la ñu violé pour me tourner la page Adji Sarr suis, la violé Macky Sall tourner la page C'est waxu qui yi du lay wax ci c'est toutes les femmes sénégalaises qui attendent que cette affaire-là soit traitée correctement. Diguez-nous Sénégal bépp bu ko mës au suivre survivre viol Diguez-nous Sénégal boo xam Sénégal pour nous ne tey yow yaa nous fa nga nekk fa ngay liggéeyee fa ngay stage ñu ngi lay tëddee pour am liggéey xaar affaire bi ñu régler ko que loi et que la veille soit plus plus plus présente plus efficace la protection plus efficace pour les victimes nga Macky Sall tourné na page bi Macky Sall may suñu yow waxu dof yi Macky Sall dafa dossier bi doomu Adama du du qui sénégalise le 100% et la constitution lui garantit ça légui nak dafa am ñaari affaire contradiction yi am dossier bi

amul leneen lu mu mënoon wax lu dul xale bi fenkat la mais loolu du la ci génnee parce que ñun xam nañu ni yow tu es au départ tu es l'alpha et l'oméga de ce problème yow Ndeye Khady yow yaay problème bi yaa ko sànc te doomu aadama bi tey bu ci ku nekk na xool Adji Sarr comme sa doom mënoon na la wax ni damay maase wu parce que yéen da ngeen néew doole nga ni baax na mais doo xalaat ni ka koy paase loo da koy bàyyi ak ay góor ne ko dugal ay maydo bay ci biir ndox mi. dugal ak maydo bay nga koy ngay massage body body nga sumeeku moom nit ku nit ki sumeeku nga diw ko huile ngay ngay ngay fay ci kawam mel ni ay walax njaan loolu c'est des choses yoo xam ni benn yaay du ko nangu benn waajur du ko nangu ku ci nekk ku am doom bu jigéen xalaatal sa doom ci condition yooyu parce que da nga néew doole sa doom dem di liggéey ci benn salon ñu koy wax ni sumeekul sol may sol sol yére mu neen Kugo go ki sol yamu dem nga diw nga diw sa yam dawlen diw ku go ki dawlen nga tad ci kawam diko diko diko di di di melni lolou nonu xomu man man la koy wax sa melni batracien ci kawam melni ben element amphibie quoi ah. ben element amphibie bu ñu wala bu wala déplacer oh. wu ci kaw ben go bo xamni du sa jëkkal mais attends kan mo koy nangu sa dom diko def ku ko def sa dom dang koy méré

xale bi xamul dara vingt ans on a rien on ne sait rien on est on est dañuy dañuy qui quoi dañuy da ngay da ngay defee que Adina, tout est beau que tout va bien que tu auras une belle vie devant toi Bon t'as ak à mel ni cher. mel Cheikh <laughs> ok ok ok ok ok stop stop stop Ben benn fenango gis nañu finalement que femme bi agrément salon coiffure quest coiffure que c'est amul agrément salon de massage Ousmane Sonko fi mu ngi wax que femme bi que ba mu vérifier vérifier gis ni que ni am salon agrément salon thérapeutique salon de massage thérapeutique ce qui suppose que niki amna diplôme kinésithérapeute voilà un diplôme bi réhabilitation rééducation physique voilà, euh... Banti, masseuse professionnelle femme bi a sax agrément au salon donc Ousmane Sonko Ben, glablateur la di glablateur bugguma wax fenkat quoi glablateur invétéré Ousmane Sonko il a été prouvé que a Khady coiffure la am agrément ak manucure pédicure les yow fan la fan fan kan foo jëlee nga wax sénégalais ni ko ki amna agrément massage thérapeutique te kala fa yoni sax est ce que du Bougane Gueye Dany Ousmane Sonko est ce que du Bougane Gueye Dany est ce que du moo ko recommandé il me semble que Bougane en sait bien plus qu'il ne parle dañu continuer le vidéo famille. yi man fen dama allergique fan yow nga ne ki amna agrément thérapeutique yow Ousmane après nous vérifier dans ce salon coiffure rek le am

Ousmane Sonko agrément bi ngay wax ni le waat fen bu rëy bi pour lan ci koo xam ne yow boñu ñu ci li boo yoré suñu alal nak yow yam xétu fen nga war capable def man loolu moma jaxal le mensonge ton rapport à la vérité tu t'es foncièrement disputé avec la vérité complètement disputé avec la vérité c'est ça qui me fait mal et c'est ça que les Sénégalais ne veulent pas voir et ça c'est tellement important pour un leader mensonge dafa garaaw ci leader parce que le mensonge la capacité de mensonge de grave un leader on va pas la fermer on va parler insulter Les Ousmane Sonko est-ce que joxe tout oustas Bobo oustas Bobo, nous confirmer li oustas Bobo, la bunul nous effectivement Euh, may ustaas bi nga xam ne maa wax Ousmane Sonko demal maase wu te nag mu wax ñu ci yan aaya ak ci yan verset islam la teg le fait que yow Ousmane Sonko nga war a dem du dugg ci jacuzzi ndax massage walla di am wax est-ce wax nga ko ni massage bi foofu da ngeen di dafa am huile body body est-ce que wax nga xaama tëjaat ci lii xama tëjaat micro bi euh, est-ce que wax nga ko ni dafa am body body est-ce que wax nga ko ni dafa am deux pièces est-ce que wax ko ni am sénégalais est-ce que wax nga ko ni dafa am nuuxu et puis Ousmane Sonko yow ba nga yëggee ci kër ga yow da ne sa benn xarit moo la yóbbu moo la yónni pour que nga dem foofu borom salon bi ne yow da nga yëg si ne ndax yéen waaye imos im im imseen ngeen imoseen xawma Madame E, euh, une entreprise qui gère l'immobilier. Légui yow Ousmane Sonko immobilier dugg nga ñu la yow fofu do euh, massage la loo fay ça c'est pour Ndeye Khady Ndeye Khady fen boobu dafa graw. Ndeye Khady lu la jagal fen yu métti yi yow ne nga dafa ñëw ne la Imosène ndax yéen Imosène Légui léegi yoonu ak massage lan la donc kooku ba mu ñëwee ne la Imosène nga ne ko fii du Imosène kon légui lu tax mu lay wax waxu massage daf la woon wax ni ah man de appartement lay wut wala sama kër gi ma tabax euh, bi dama am kër goo xam ne dama leen ko bëgg a dénk pour nga pour que ngeen louwéel ma ko donc sa wax yow ngay xat yi sa yow doo wax dëgg sa wax wóorul parce que sa wax bu wóoroon kon doo waxee nii que kii dafa ñëw yow huil ba noppi naan la ndax imo sen kay ku fa dem appartement ngay wut wala nga jël sa bâtiment di ko jox nit pour ñu louwéel la agence immobilière bi pour mu gérer le ko yow nga ni dafa tëye huile ñëw naa la ndax Imosem nga xam nga yeen da ngeen yap Sénégalais mais c'est bien parce que Sénégalais ñoo bëggu a gis dëgg bi Sénégalais ñoo bëggu a accepter ni que image bi ñu créé autour de Ousmane Sonko c'est pas xam nga c'est pas quelque chose de réel que c'est juste euh, un mythe il faut accepter qu'il s'est effondré le rêve s'est brisé le gars il n'est pas un saint c'est pas, il est loin, loin, loin même d'être une femme, euh, un homme pétri de valeur. Parce que les femmes, a day tu les donc vous voulez nous, sonal vous voulez que nous